Bienvenue sur Salam Vision. ci yàlla dolli ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla doldino ay maqaam yàllaw salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokkoy den bi xamante ni yéen a ngi suivre bi nga xamante ni moom Salam Vision ñu amaat mbégte si waat ci seen bi nga xamante ni moom seen jotaay yu xam-xam bi nga xamante ni moom lañ koy faj Seydi Diakhoune nag bu ñu ko waxee moom fi ñu daan mooy bëgg a gëstu kenn képp koo xamante ni suñu borom doo na ne waaw am lu mu ko baaxee ñu seeti ko waxtaan ak moom ci li nga xamante ni suñu borom baaxee na ko ko te mu ëlbatikuwaat di ci jàppale waat jaami yàlla yi moo sabab li tax ñu fexee ba émi jotaay bu mel ni am. li ñu def tey rek mooy gannaaw danoo seet si suñu mbokkum taalibe suñu xarit waaye itam suñu wóolare ñu gën ko xam ci Serigne Souleymane Diouf macha allah. doon koo xam ne tam wax dëgg yàlla li ko suñu borom baaxee wax dëgg yàlla mi ngi ciy baaxewaat askan wi mi ngi ciy baaxewaat jaami yàlla yi kenn ku ci nekk foo mën a nekk ci biir réew mi ba tax na tey ñu seet soit ko bëgg a waxtaane waat moom lenn rek ci xam-xam ni ñuy def mooy wala ñooy def dara rek jox ko kàddu bi mu ñëw ko askan wi bu noppee rek ñu daal di xuus daal di wéccoonte ak ay moom ay kàddu lépp dem daal di dëpp rek ak xam-xam sëñ Souleymane ñu ngi leen nuyu di la ziar di la dalalaat macha allah ci biir jotaay bi alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil xalqi sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima wa radiyallahu an saaxibil xatmi warkatmi wa mawlana ahmad ibn muhammad at-tijaani radiyallahu taala anhu wa ala nabihi amin sëriñ taal bi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu mboolem koo xam ne maanaam mun ne bàyyi xel ni di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maanaam mboolem koo xam ne mun ni bàyyi xel ne di leen ziyaan di leen di leen ñaanal yàlla lépp luñ fiy jukki rek ak lépp luñ fiy wax yàlla nekk lépp ay yiw te képp ku fi dégg tamit yàlla na ko suñu borom def lépp ay yiw si bàkk sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam incha allah seen mbokkum taalibe Souleymane Diouf ñu ne ñu ne bu baax yéen seen daara di leen ñaan yàlla seen sit bi tamit yàlla nekk sa kaw a kaw a kaw si barkat sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jox ñëpp seen gum xodaa di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu Serigne Souleymane ci nuyoo bu am solo boobu waaye itam macha allah ci ñaan yu mucc ayib yooyu na yàlla sama borom ba ñu ñuy def rek ñu njëkkanteeg waxtu bi jamono moom xam na te yite yi bëri na macha allah euh, bu baax a baax ci jot gi ñu may ba ñu mën a toog ak yow wéccantewaat ay kàddu waaye santaat ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moom mi ñu may ba ñu fekki waat jotaay ba mën ko wax mën ko ñàkk itam macha allah rabbi fi ñu koy tàmbalee rek mooy sëñ Souleymane tey jii bu ma la doon laaj ne la tey jii fi jamono toll ñu gis xew-xew yi yëngu-yëngu yi fi amoon yëpp ba tey jii lépp daal di mel ni lu delluwaat à la mm-hmm. waaye mu mel ni tey jii tam bu ñuy xool askan wi dafa mel ni fi mu ne daanaka euh, euh, bàyyiwuñu xel ci xew-xew yi fi xewoon bërki démb rek mm-hmm. ak démb mm-hmm. ak tey dee yu bëri yi gu metti gi ñu nekkee woon couvre-feu bi confinement beeg mbas mi ci biir réew mi. Mm-hmm. tey jii bu ma laaj ne la tey jii ana ban jàngat nga ci am ak ban gis-gis nga ci am ak tey jii lan ngay soññ itam jaami yàlla yi ci loolu itam la ne sëriñ Tall loolu sant yàlla ndax àdduna moom lépp lu ñëw. dañ mm-hmm. koy teg si loxee suñu borom ndax yàlla suñu borom moo ni sàq moo ni moom. Mm-hmm. kon dañ koy jaamu rek. mas yi mos lu fi mës a am rek muy jàngoro mooy lépp lu fi wàcc. daa soob suñu borom. lu soobul suñu borom du am. tam nañ jaamu yàlla te teg si yoonu njub mm-hmm. amaa ni coow moom fi dañ ko fekk mm-hmm. mooy dañ ko moytandiku mm-hmm. dañ ko moytandikoo rek yàlla mën nañu dimbali lépp dañ waaw ñaareel bi mooy doomi aadama yi dama bàyyi xel suñu bopp bàyyiwuñu xel suñu borom ndax fi ni gudd yu nii pour jaamu yàlla moo jafe suñu jaamu woon yàlla la dëgg dëgg jaamu yàlla jox ko gëddam defe naa yenn yenn yi yu bëri yi di am yàlla suñu moom mënuñu dimbali. Mm-hmm. ba du am ñaare bi aaxiri maanaam toll. Mm-hmm. fi ni dégg gi bëri mm-hmm. kenn ku ne. boo rommee teg jaag tegaat jaag tegaat jaag ah war naa xel ni bàyyi sa xel ni. ñu ni teg ni tey dinañ jullee bis dina ñëw yow tamit teg la si kuus bàmmee dina jullee. kon nag yàlla na yàlla booy xew-xew yi si am yëpp. ah yàlla na nekk ah am naa tànge. di nii. yàlla na nekk mu lépp lu fi am yàlla na ko lépp def ko ay naataange ak ubbeeku ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi na mas mi tamit yàllaa ñuy dimbali tamit yàllaa ñuy dimbali ba ñi siy déggee si Europe wala feneen ni tamit yàlla dimbali na si Sénégal li si bëri xewu si kon dañ leen ñaan yàlla rek ah xeex yi si amal yooyu yëpp nañ teg gàndaay suuf te jug liggéey dimbali suñu bopp dimbali suñuy waajur dimbali njaboot gi si bàkki Seydina Muhammad suñ ko defee rek hmm. yàlla mën naa jëmale lépp si kanam incha allah incha allah suñ ko defee yàlla mën naa jëmale lépp ci kanam te defe naa ne mooy tegu ci yoonu siraatal mustaqim hmm. dëggal jubal leeral hmm. loolu nag dara ëpp ko ci solo macha allah rek waaye Souleymane mu mel itam fi mu ne gis nañ ni wax dëgg yàlla jamono ki xat-xatam nit ñi jaaxle nañ nit ñi sonn nañ mm-hmm. nit ñi nit ñi nit ñi bëri nañooy jafe-jafe mm-hmm. waaye dafa bëri coow loo xam ne tey dafay dafay dafay répercuté wu ñëw tey nga xamante ni yéen yéen nañuy wax ni sëriñ si wala yéen ñaankat yi wala yu mel mm-hmm. noonu fi mu toll nii ndax fi mu ne day dem ba ñi ñu bëri ñametuñu sëriñ ñëwatuñ sëriñ waaw te ko waral fi ne mooy jox sa sëriñ sa sëriñ bi ab xaalis ëlbatiku di ko woo dootoo ko jot téléphone mbaa la ngay bëgg du am coow loolu daal dafa bëri fi mu toll nii yow ban jàngat ngay am ci loolu am daal nii maanaam nii sama morom si yemale mm-hmm. kenn ku ne naa war a xal bàyyi xel ni suñ borom mun moom kiy ñaankat mm-hmm. na xam na ngay ñaan mm-hmm. loo mënu neen mënuma loo mën neen mën naa loo mënu neen mënuma dëgg ndax alalu àdduna dafa jeex ndax ndékki fay la ñeent fukki junni wala mu fay la fukki junni xamul fu mu ko liggéeyee ba jox la nañ si def sa wakkil laay sa wakki sa na wakkillu si yàlla ndax nekk da nga ne ñaan kii ñaan la dangay ngay ñaan yàlla may la mm-hmm. mais lu jafe rek mooy ijaaba ijaaba mm-hmm. moo jafe ñaan bu nangu mm-hmm. am na maay dafa jufe ndax ijaaba leen pour na am pour na am ko il faut que ne moytu bàkkaar surtout il faut que ne moytu bàkkaar nag sunu borom su dogalee loolu yow tamit nga xam ne yow yaa ngi dox si wàllu ñaan nit ki ñëw na ni la nangam laa bëgg. Mhm. ñu defaral ma ko soo ko mënulee ah léegi mënu ma ko man lii laa mën. nga mhm. yem si li nga mën soo ko yemee si li nga mën. Mhm. yàlla mën naa dogal loolu na yem loolu na xam moom moom la mën. di ko liggéey nit ñi di gis. yàlla mën na kaa barkeeral ba tey mën na see am lu kawe sa njot bi ba nit ki la muy xëcc sax. ah yaa ki ëppale sa yow. mais yàlla na yàlla day si yoonu njub man li may wax sa zone nit ki daal ku fi ñëw. lu mu mënul maa ngi koy maa ngi koy daal maa ngi wax daal maanaam képp koo xam ne mu ni dégg. Mm-hmm. ku koy defit mm-hmm. la na ko bàyyi. Mm-hmm. ndax ñun ñëpp ah Sénégal yaa kenn defatul. kenn defut léegi. ñëpp yeewu nag ku yeewu dootoo yeewooti. kon kenn ko ne fa ñu dugg sa war na kaa xam. ñu nag dañuy ñaan képp ku fi ñëwit loolu laa lay wax. nit ki doo ko jox bis. mais yàlla moomu ay bisam. danga naan kanam man maa ngi jaam man nag damay ak jaam laa damay ñaan mm-hmm. waaye am naa yàqin ni la ñaan yàlla di leen sa may ndam mm-hmm. si mbaaxu yàlla te loolu nu ñaan yàlla mm-hmm. yàlla nu yàlla deg daal sa yoonu ñëpp si bàkki Seydina Muhammad waaye képp ku koy def daal moo moo tey yi na xam lay doon màtto tamit na bàyyi xel ni bàmmee na ngi ni taxaw si ni garab waaw na nit moom sa bàyyi xel rek doo sonn ndax wa àlla yi sa nin saani idaama sax wa àlla sax yu sa fi yura sama yu jisaa u jaza àllaw faa mm-hmm. lu waaye jëf rek ak lu mënta doon. Mm-hmm. lu doon ni bët bën bëso yàlla rek rek la yóbbu xeer. kon nag na nga ko bàyyi xel incha allah sëriñ Talla. mu doon lu am solo macha allah sëriñ Souleymane mooy ni nga ko waxee rek ndax lépp itam mi ngi ajuwaat ci ak njub ak siraatal mustaqim mm-hmm. te def naan loolu mooy mooy mooy mooy li ci ëpp solo macha allah rabbi mais sëriñ Souleymane ba tey ci wàllu seet ma bëggoon ñu waxtaan ci euh, wàllu seet wàllu listixaar am na lu ma xamoon ci yow yoo yoo xam ne yaa ngi ko yaa ngi ko seet gi gis naa léeg-léeg dañ toll ci tolluwaay yoo xam ne sax nga koy limal ay secret boobu moom nu mu demee secret la wala loo gëstu la wala dono la wala lan la. man Serigne yàlla daa dem ni moom nekk sama jëmm ji. Mhm. yàlla moo ko def sama jëmm. Mhm. lu yàlla def sa jëmm nag kenn mënu si dara ndax zaalika fadlullaahi mhm. di rek yàlla may jël ngëneel def ko sa doomi aadama nit ko la yàlla may nekk kenn nangut man na la may wax ni maanaam tey ji ma tudd tuur wala ma seet gis mbaaxu yàlla la waaye du sama mën-mën du sama dara am mm-hmm. ndongo laa rek ma tëggum ndongo waaw kon nag lépp luñ si seetal nit ki mu gis ko na jàpp ni mën-mënu suñu borom la mm-hmm. waaye du mën-mënu doomi aadama mm-hmm. ñu matuñu mën nañoo wax tey jii léegi nii seet léegi nii gis la na ñëwaa ba subaa ñu wax na leneen lu bokkutal loola te bokkutal kenn ku ne ak sa biddéew du dëgg kon nag seet moom na ngay gëstu di jàng yenn ni mën na kaa doon mais jàngi tamit dafa baax. Mhm. waaw loolu moom soo koy defee incha allah rabaa lu si bëri doo si réer bu neexee sa morom. am na solo. Mhm. mu mel ni fan yi tamit gis nañ ni sëñ Souleymane bi mi ngi génn na dëkk bi lu bëri dugg ci ay ay ay dëkk dëkkaan euh, lu waral déplacement yooyu xam-xam la wala ay secret la yooyu jële ji wala ay sarax yoo fay defi ji wala déplacement boobu lan moo ko waral. waaye déplacement moom du si ñàkk sa ñun loolu moom paysaane nay jékki-jékki dem si dëkk dem sàq fa xam-xam paysaane dem sa koo xam ne moo la satum aluwa mhm. loolu moom dafay baax si nit mhm. nit soo bëggee dara day def dara mhm. ndax dara mun na ñëw waaye fekkee dara jarul la dara si dara da am dara si dara kon xam-xam fu mën a nekk foo ko déggee da xam ne kooku yàlla baaxal naka dara boo demee wàcceer sa bopp même soo ko satoon aluwa wàcceer sa bopp te na xam ne yow doo dara da ngaa ñëw fekk fekk koo xam ne da nga soxla moo ko hmm. wàccee sa bopp wàccee sa bopp fekk na fa doon gubbi lenn sax waaye na fa doon bay sax hmm. bay fa ba sàq lu nga bëgg ba am ko nga tërbiyu ko hmm. waaw soo ko defee su mburoom na laa jàppale waaw ndax àdduna moom loolu doog la woote ba ñuy dugg si dëkk bi ak sarax yi di dafa yooyu yëpp woote ñuy dem sa dëkk ba di sàquwaale moo tax rek sëriñ taala mu doon lu am solo loo xamante ne mënutoon na ñàkk waaye mu mel ni génn yi ngay génn tam gis naa ne am na ay bagage yu yees yoo xam ne indiwaale nga ko ci ndax maa ngi am yoo xam ne maa ngi koy dégg mhm. waaw waxoo ma ci dara waaye am naa ñaar ñoo xam ne daal jot nañ fee yegg si waaye bi ñu fi génne woo nañ ma wax ma fi mu toll nii li ñu fi jële ma bëggoon xam càngat yu bees yooyu noonu ñuy mooy njëriñam ak lan mooy baas bi tamit ah gars yi dama baax la seen taal gis na sangat mhm. nit ku mënta doon mhm. soxla bu ne am lu mu fi indi rek soo fi ñëwee soxla ubbeeku na bëgg. Mm-hmm. di leen xool suñu yàlla lu nu yàlla dénk bonk mm-hmm. lu nu yàlla dénk di leen si mas as jox la. Mm-hmm. waaw ndax am na ndomb yoo xam ne ubbeeku la am na cangaay goo xam ne ubbeeku la ubbeeku la yooyu pour ubbeeku maanaam boo tey na nekk si bërëb ñu lay xeexal yooyu noonu. am na yoo xam ne suñ ko defee si bay moom suñu génnee béy moom mu des na si def moom bu neexee yàlla yeneen moom. su dee place bee xëccoo yàlla mën na la sa béy nag. maanaam daal nga xam ne place booy xëccu bu bu nit di xëccu moom fi mu nii daanaka bu gisanteeg yow moom ba nga xool li nga ci war a xool ba ngeen nga teg ko ci code daal fi mu a jot moom. fi mbaaxu yàlla. incha allah rabbi. incha allah euh, yi moom ak ndomba gi moom moom moom boobu pour pour pour pour pour pour pour ubbeeku rek la. loolu lu muy lu muy indi bëri na quoi. mais hmm. benn bu ne at. raw xaanam benn bu ne at nit muy li muy indi rek ak mm-hmm. soxla bu mu mënta indi mm-hmm. bu ñëwee suñ ko xoolee xool lii mooy saraxam mm-hmm. lii may ay gàllankooram suñu waxtaanee bu juboo yàlla mën naa def raxma su yàlla dafay raxma rek incha allah dina yëg sa bopp incha allah si kàttanu yàlla macha allah ci wàllu kaaraange tey ji lan nga ñu ci ndax réew mi tam jaxasoo na rëb na loolu te metti na ah man daal lu mën mën a xamal ba xamal la guddi yu toll nii guddi yu toll nii daa wax de. Mhm. ku mën a wuti ku mën a wuti ji kaaraange wuti ji kaaraange ak foo ko mënta wuti ji. Mhm. guddi toll nii daa wax de. dëgg ku mënta wuti kaaraange ku mën a wuti kaaraange. da mhm. ko wuti ji. ndax nii li ñu gis nii. nii nii seen kanam nii ku amul kaaraange la sa sa sa bopp bi moom la yàlla xam la yàlla jëlee na xam ne yaa tey sa bopp nag sa benn côté. xam lay sabab lu si yoon bi ndax xam moom tey jii si tari na nekk fi. di dox du wéyale du jibile ba leneen fekk la fa. te amoo kaaraange da ngay faatu. kon nag kaaraange dafa baax taala si lépp lu mu mënta doon. bu dul affaire sax leneen. mais kaaraange dafa baax surtout ndaw boo xam dafa nekk si digg ndawam di liggéey. kaaraange dafa baax foo ko mënta wutee dana jar da sam seddaal dem wuti ji ko. Euh, wutal ko koo xam ne la wut woon moom si boppam xam na si lu mm-hmm. mu xam ban sangan lay laaj ab ban kaaraange lay laaj waaw ndax nit ki da si ñëwee da nga kaa war a seetal ban kaaraange la bëgg da nga kaa war a xool ban nomba moo baax si moom ak ban téere moo baax si moom mm-hmm. ak ban cangaay na ko war a jox boo xam ne su ko sangoo dina yëg lii mu sangoo nii baax na mm-hmm. waaw incha allah mu doon loo am solo loo xamante ni wax dëgg yàlla leeral bi tam leer na nañu sëñ Souleymane mais bokk na ci tam est-ce que li ma bëgg ak mooy fan yi toog naa ba yàgg nga woo ma téléphone ma wuyu la nga ne ma boo xëyee saraxel nangam ak nangam ak nangam. Mm-hmm. boo ñëwee après dinañ waxtaan. Mm-hmm. léegi ma bëgg a xam loolu ndax lu lu la feeñu ci sa nit la wala ci ci clients yi ngay jëflanteel loo yëg la di leen ko di ko topp ci ñoom wala na naka la loolu dikkee ba nga xëy rek woo ma téléphone. xam nga ku bokk si yow ak ku bokk si yow bokkut. Mm-hmm. ku bokk si yow. ak ku bokk si yow. noo yooyu am xam na ndikk su bokkee si yow yàlla booy la am moom mm-hmm. nee ni nekk la toog gis sa moom sarax te génn nga waxoo ko tamit mu ne mu dem nekk si ay gàllankoor mm-hmm. lu muy indi coon la koy indi mm-hmm. te booy si yow tamit yàlla dénk la am lu mën a dénk da gis si moom sarax woo ko da ko génnee sarax mën na kaa dimbali na sarax moom mu génne mun na kaa fanqal si affaire liggéeykaay gàllankoor bu doon ñëw moo tax loolu dong nañ sa sabab la woon waaw paysaan ne jëflante nit man nekkat nit ku may liggéey nit moom mm-hmm. yàlla maa dimbali képp ku may liggéeyante may jëflante moom si guddee bëccëg mm-hmm. su ma toogee ma gisee sara dama lay woo am naa si yenn clients yoo xam ne may toog woon ne génne sarax sàngam génne sarax sàngam. Mm-hmm. loolu moom yàlla baaxal na ma samay clients wu bopp ñoo xam ne yàlla moo boole ñoom. incha allah incha allah. loolee itam am na solo kon ñi fi ñëw ñëpp itam yàlla na yàlla boole ak ñoom ba fi wax dëgg yàlla euh, nga di leen taxaw ci lu mel noonu. saa soo gisee may indication dama doon gis euh, sëriñ su bëri par exemple xam ne dañ lay samp. Mm-hmm. nga xam lay sampal. Mm-hmm. yor say bagage ñoom samp bañ lay sampal mooy moo leen di permettre que saa su ne ñuy mën a. xam ni waaw lii njëm si ci yow bu dee lu baax la bu dee safaan ba la ñu xam ko ba lu ci warul la ñu mën laa woo wax la nooy fagaroo wala ñoom sax ñu jóg def ko mais ma gis ni yow danga ma ko defal te mu xaw a doy waar moo taxoon ma ne dinaa la laaj ba xam ndax euh, damaa yor bagage yoo ma sampal ci biir kër gi wala ndax kii ne itam da nga leen di sampal dara ci biir daara ji wala <laughs> déedéet loolu yaa maaxu yàlla gis na àdduna mm-hmm. àdduna soo bàyyee sa xel sa bopp la doo sonn mm-hmm. gis na ku ku ku la bàyyi rek boppam ni la ginnaaw yàlla sama waajur yoo la yaakaar mm-hmm. xam na daa daa jël lépp teg la ko. ah yow nag na yaakaar yàlla xam ne kay daa yaakaar yàlla ba pare. Mm-hmm. yàlla boolekaat yow. ndax nit ki ah chaque jour yaa ngi mais ñaan gu ñekk sa doomi aadama. Mm-hmm. mooy ngannaay mooy eh, ñaanu waajur. Mm-hmm. waajur ne su la ñaanalee ba pare. sëriñ bi day mottali rek. sëriñ ba day mottali rek. na fekkee amoo ñaan waajur nag day na mbir sëriñ. di ñaanaat ah di saata sa xaalis du tax na am. kon su ma la déggee bu baax fi ne maanaam ñàkk ñàkk ñaanu ay waajur fi mu toll nii mën naa gàllankoor doomu aadama ba sëriñ du ko mën a saafara. laa ilaaha illallaah mën naa gàllankoor lu ne ñàkk ñaanu waajur laa xam mën naa ñàkk mën naa gàllankoor lu ne. Mhm. ndaw soo bëggee barkeel. Mhm. dama bëggee say waajur bu di bëgg ba pare. ne sa waa bëggee koo bëgg bëggal. Mhm. soo bëggee say waajur. ñu bëgg. yàlla di yàlla muy njëkk bëgg si yow. waaye fekkee da dëgg dëkkoo sa tàng sa xol sa waajur. du ma la no wut doo ko am de. waaye du yomb. waaye du yomb. dëgg la kon baa naa dem sa sëriñ dëkk fay fanweeri junni. Mm-hmm. njëkkee ko sa waajur ba pare. soo ko njëkkee sa waajur. Mm-hmm. sëriñ bi day mottali rek. waaw sëriñ bi day mottali moom day ñaan. Mm-hmm. mais li muy ñaan ah naka teg si sàtt rek. waaw fekk daa jubbuwul sa waajur. mën na ko jubal sa waajur ba pare. sàq si ñoom ay ñaan bu ne ñaanal ba sant la gërëm la. sëriñ bu la ñaanal bal bay day àq. sa mbaaxu yàlla. macha allah incha allah. jërëjëf sëñ Souleymane loolu tamit amatina na solo loolu mënutoon na ñàkk ñu leerlu ko léegi beneen bi tam bokk na ci euh, wax dëgg xamoon naa ci Souleymane mën a jubale lool bon maanaam ci diggante ay ay waay dencante. Mm-hmm. bu amee ay jafe yu mel noonu Souleymane mën ci lu bëree bëree bëri mais est-ce que ba tey Souleymane secret boobu yaa ngi ciy mën waaye ex ni nga ko mënee noonu est-ce que tam secret boobu bokkut na ci nga xam tam ñooy séparer ay doomu aadama. wax dëgg fa yàlla yàlla doon dimbali moom taala mm-hmm. tegal fi un million wala euh, deux millions séparé ma di ta nit mm-hmm. billaahi lazi laa huwa ku mu ku mu tax a jóg dama mm-hmm. damay damay es mm-hmm. dee moom boole ay nital nit jëkkër ak jabar aji dajante am na ñu si yàlla dénk du yàlla may nañu de yàlla du ñu dénk suñu jubalee rek mu awal suñ ko awalee yoon yàlla dimbali suñ ko awalu yoon na yàlla nangu du dëgg kon nag ñun dund dund loolu moom kepp ku koy def dégg na Souleymane Diouf day dëdd la moom see moom may es nga xam mënuma ko duma ko def mënuma ko sax dégg mhm. kon nag maanaam fekkee ni jubale mhm. nit am na ñu si dénk mhm. si alxuraan yàlla dénk si alxuraan suñu ñëwee ñu ne nga moom si alxuraan am na loo xam ne si fas sax mun nañ kaa jaaraam moom si fas waaw kenn lu ko ne addu muy bu bu ñëwee ab bunt ba nga koy jaaree ndax ñëpp bokk ñu yem. Mhm. waaw ñii sa alxuraan dañ leen jàppee ñu am na yoo xam ne fikir dañ leen di jàppee si fas. macha allah ok loolu am solo mais léegi tey est-ce que Souleymane base base bi nga xam ne moom la ci la ba Souleymane sukkandiku di ci liggéey dëgg-dëgg alxuraan la wala sunguf la wala ay ren la wala da nga boole yëpp. alxuraan ak sunguf laa boole man. alxuraan ak sunguf. Mhm. Mhm. moom laa liggéeyee. damay faral di dégg ñu naan alxuraan gaawut ak yu kenn xamul ak nangam nangam loolu mu demee kooku xam-xamam moo gàtt moo gàtt rek. <laughs> ndeysaan. xam mm-hmm. moo gàtt gars yi su ko xam-xam seen xam-xam moo gàtt. da nga man fii laa yem. Mm-hmm. man nangu naa na ni man fii laa yem. Mm-hmm. nga dem gëstuwaat man moom man fa ma yem. man maa siy jëfandiku ko yàllaa may dimbali. maa siy gis dégg nga. mais buñ ni sunguf moo gën a xam na zulmaan ak nuuraan yi bokkut. xam na. sobe mm-hmm. yàlla bëggul sobe fekk na nekk sobe yàlla daa ko yow may ko bàyyi ko bàyyi ko mu ko bàyyi ko may ko may ko mu dem bàyyi ko mu dem mm-hmm. loolu du am garanti mm-hmm. mais ak Quran fi yéen yaa nekk kam suñu borom waaw di ko tudd day kontaan fa nay jaaxlee fa lay fajee sa aajo ak Quran am na si gën a gaaw am na yoo xam ne soo fa jaaree te mu gaaw nanga naa sungu fa jaaree te fekk loolu ak Quran daka jaaree mais ñaare yàlla yow mi ñaan yàlla dénk la ijaaba yàlla may la ijaaba su yàlla may la ijaaba soxla bu ñëw léegi mën na ka faj. loolu moo jëfee seen i nag loolu moo jëfee sëriñ si ñun sëriñ si bokk ñun ñu ne neen ay sëriñ lañ. Mhm. waaw ma sëriñ du ma dara ab taalibe nangoom daara laa rek. mu mel ni wax nga lu doy waar Souleymane parce que dafa bëri sëriñ ñoo xam ne dañ leen kon su ma déggee bu baax tam am na ci sëriñ ñoo xam ne kon ñàkk ijaaba wala lekk lekk lekk lekk riba moo tax fi mu toll nii mënuñoo ñaanal doomu aadama wala ñu defal ko dara lu sotti. am ñoo xam ne ñu bëri kenn déggatu leen. xam nga lu ko war mm-hmm. mais kenn ku ne waa aatee ku la di xaqin xaqa dëgg na wax koo gis ku ne am na àq sa moom mm-hmm. ak ku mu mënta doon mm-hmm. dégg nga kon maanaam mu ijaaba yaa koy liggéey am na tur yoo xam soo koy liggéey yaa koy liggéey sa bopp mu wisi la la wisee yàlla mën na laa dimbali tur boobu noonu la woote tur boobu noonu soo si jaaree la yàlla mën na laa dimbali loolu nangu mais ijaaba rek mooy jafe waaw loolu nag soo ko bëggee ne moytu bàkkaar waaw bàkkaar nag yaa koy moytudoo sa bopp hmm. waaw am ah, sëriñ moom bàkkaar sax da koo war ndax koo xam ne nit ñi dañ lay yaakaar nga war di leen ñaanal wala di leen teg ci yoon siraatul ah. mustaqiim moom fi ne war a dëkkee bàkkaar moom fi ne ah, xam naa daal ñi liggéey xam-xam bi ñun ñëpp ñu ñi liggéey luuraan yi moom su ñu ma gis su ñu ma gis man daa xam xaw ma ñeneen hmm. ñu ma gis hmm. ñi liggéey xam-xam bu ñun ñëpp su nuuraan yi waaw ban inconvénient moo am ci diggante nuuraan yi ak xam-xam bu ñu bokkul na xam nga xam-xam mu ñuul. Mm-hmm. liggéey sobe. Mm-hmm. ok ah bu nekk say liggéey mu gaaw di gis résultat léegi fat-fat. Mm-hmm. sacrifice baaxul. mais loo xam ne maanaam mën na kaa sacrifice si alxuraan te doo doo rey doomu aadama doo dagg der dara ñu tuut deret def ko ngir wajji laay taaraa. comme xar mu weex am na loo xam soo ko jaayee sa xar mu weex. ah yàlla suñu borom mën na laa dimbali si lu bari sa lépp ubbeeku. sa xar mu weex waaw mais am na loo xam ne dafay jaayante sa diggante sa borom mais de fekk nag na nekk si yoonu njub soo ko nekkee yàlla mën naa demee sa lu bëri day sotti waaw mu sa si yooyu nag ah seet soo taxawee nii nag soo ko jaayante nit si la woowee ne takk rek nangam laa bëgg takk war naa xam lu lu lu ko fekk takk te doo yëkkati fooy doo yëkkati dara waaw loolu ijaaba la wala xam-xam la wala lan la. man loolu yàlla moo la koy may doole bu nekk si yow. ok loolu da nga koy da nga bu am ko. Mhm. loolu doo nee takk tey taara woo mu ne ma nangam laa soxla si ab ab nangam. Mhm. naa diggante bii kat laa bëgg kat na kii wax la ak turu yaayam soo coupé na mën na laa wax nangam ak nangam si mbaaxu yàlla. ndax loolu damay dal si lu bëri nit damay woo léegi ni ma naa la boole diw moo nekk nangam ak nangam. Mhm. waaw loolu moom yàlla baaxal nañu ko moom. alhamdulilah. macha allah yàlla gën a dëgëral taxawaay bi bu baax a baax a baax. bokk na ci tam fan yi gis naa am na fi koo xam ne am na soxla boo xamante ni wax dëgg yàlla bi la boolee moom ba nga ko xoolee ba noppi da nga ko am loo ko garantir bi tam suñu borom def ci sutura. ma bëgg xam loolu nu mu demee. Eh, garanti moom maa la waxee lépp ma ko tegaal loxo xam nga yow waxoon dañ ma koo dee. waaw dama bëgg wax yow nga wax ma affaire bi nu mu demee quoi eh, boobu loolu lépp mbirum sunu borom bi la mënu ma la wax chaque jour la damay wax nit ñi moom maa lay waxal. Mm-hmm. képp ku fi ñëw ñun la bis sàngam lii ak lii ak lii dina nga la dina la ko defaral. Mm-hmm. ah am naa njort ni am naa njort balaa ñaar fukki fan wala wala fukki fan. Mm-hmm. si mbaaxu yàlla si si yàlla àndee di ma bëgg li dina am. mais nag dooy fekk yàqin bi lay taxawee ak sa diggante ak sa borom la. loolu yàlla mën na la kaa nangu mais dangay jël yàlla teg sa kanam na xam ne yàllaa nekk sa kanam. Mhm. yàlla mun na laa dimbali loolu. borom bi di kun kuni. Mhm. soo ko kun kunee rek mu kun kuni. waaye tant que yàlla teg sa kanam ne ma ne bëgg doo ko am de waaye du gaaw mais lépp loolu su amee ñaan nga sa nangoo yàlla suñu borom bi la. Mhm. waaye lu Souleymane Diouf. dëgg xam naa fi may jeex rek dañuy laal actualité ndax gis nañ bërki dem wax dëgg yàlla ku ci mel ni Eumeu Sène ak Lac de Guiers daal di fiy bëre ñu ngi waajaat tamit wax dëgg yàlla combat bu rëy muy diggante Modou Lo ak Ama Baldé waaye xam naa ne loolu dinañ xaar ba génn ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci koor ci koor gi incha allahu rabbi mais am na loo mu junjoon gannaaw weesu na nag du ma wax ndax maa ngi yow sama téléphone ak sa téléphone nga wax ma ca ba ñuy waaji sa bi làmb ja la nga ma waxoon tam du toll ni te rafetal ay wàccu wàccul yoon woon mu yéeme lool. Mhm. léegi ma bëgg itam ma xam ndax sa digg euh, de combat Modou Lo bi di ñëw ak Ama Baldé ban gis-gis nga ci am wala lan nga ci gisagum ci jamono bi toll wala fan la situation bi tollagum ñu toll nii. en muy dénk bi. Mhm. te bañ mhm. ah nekk fi du xuloo ko xeex ku si amul gàllaaj amoo bopp. doo ko si peggu ndey. amul gàllaaj amul bopp bi amul bopp. Mhm. amul gàllaaj. Mhm. pegg toogal sa peggu yaay. te may dem salaam ja. Hmm? ku si amul bopp dee gi dina bëri de. ci làmb jooju noonu. làmb gi ay sacrifice dong la. du ma ne diw mooy tax du ma ne nangama nangam mais ku si amul bopp toogal sa peggu yaay. Mhm. te na maytu. waaw. loolu itam mm, na doon na doon na lu leer te moom fi mu toll kay nan ñu maytu nan ñu maytu bu baax a baax a baax. tey jii fi ne mbaa gis nga ne fi ne maanaam daal fi mu ne moytu gi gannaaw bu amee tam mbaa dina dana jur jàmm parce que ñoom tàmbalee guñu bër a def waaye a jot jotaay ba mujjut a am. ah moom moom laa wax moo tax ndaw yi nañu moytu xam nga mbëri ñu mhm. ñuy def seen i gàllaaj mhm. lépp sacrifice la. kan kan ci ñoom moo ñëw. ñoom ñoom ñëpp. man kan ci ñoom ñaar moo ñëwagum ci yow wala moo la woo téléphone. wala kenn ñëwagum ci man. man kenn ñëwul. parce que am na ci boo xam ne xam naa ne sa waay la yéen a dëkk. waaw waaw waaye kenn ñëwul si man. <laughs> saa yi daa mel kenn ñëwul si man làmb yi moom. Mhm. kenn ñëwul si man nan ma toog ne bàyyi ni asama si jaaree bi. macha allah waaw làmb moom ni ñëwee sa karam a karam. Mhm. incha allah yal na yàlla egg. danaa topp action yoo xam ne du ma bàyyi dara. incha la xam naa fi ñu jeexle rek gannaaw wax dëgg yàlla euh, ñi ngi doon ñi ngi doon wax jamono yi nattu yeeg métti yeeg yëpp waaye fi mu toll mel ni ñi ngi ñi weeru bi weer wu màgg bi weer wu kawe bi mm-hmm. weer wi nga xamante ni weer wu ngëneel la weer woo xamante ni allah benn bu baax boo ci def mu jur mu jur fukki fukki fukki fukki fukki fukki euh, tuyaaba mm-hmm. doon lu lu mucc ayib loo xamante ni wax dëgg yàlla nañ ko ba sës ci rëkk nag mm-hmm. lan ban ban lan mooy doon message bi nga xamante ni war nga ko lancer à travers jullit yàlla yi ñu mën a gën a bàyyiwaat xel weer wi nga xam ne dugg si nañ ci waaye tamit naka la jullit bi tam war a melowoo ci biir weeru ko noonu weeru sell wi sëñ Daara moom. weeru koor. weeru jàmm yàlla la. même bu dugg weeru koor sax jàmm. jàmm yàlla. jullit julli. jullit jullit jullit. julli leen xam. weeru koor bu ñëwee ku dàq jaamu si yàlla na ne kii la. weer bi demee kenn dootu jaamate yàlla. weer bi nag moom weeru njëkkante la weer bi. weeru njëkkante la li si nekk si ay ngëneel dafa bëri hmm. mais nag yàlla mi ne xam nag moo mën a may as gër ak gudd fan hmm. yàlla may gudd fan ak wér bu ñu dugg si bisimillahi rahmaani rahim hmm. eggale ko si alhamdulilahi rabil alamin te am naa si yaa kenn am nañ si yaakaar bu baax si mawlaana tabaraka wa taala kon nag yal na yàlla defal too feexal sa yàlla ubbi ñu sàmm ñu sàmm mboolem ci barkab Seyxi Fadilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismi ilaahi ci barkab Seyxi Fadilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla doldino ay maqaama yàlla Bienvenue sur Salam Vision